Euh, euh, tout d'abord maa ngi nuyu euh, àdduna di nuyu waa Mbàkke di nuyu ñëpp tey xanaa kontaan rek ku gis ouverture bi tey Mbàkke ak accueil bi population. waaw suñu xel dal na te Mbàkke président am na fi ay leader te ñu yaakaar ne bu ñu liggéeyee def proximité ak population bi comme ni mu ko waxee rek suñu borom dinañu defal ndam incha allah. président de ku mu dig ci wàllu tali. Euh, yaakaar naa war nga cee am yaakaar ndax gis ngeen infrastructure yi mu def te gis ngeen Ila Touba bi kon bu bu ñu diggee un ki euh, vingt kilomètres de wala cent kilomètres de route sax bu soobee yàlla dinañ ko gëm te xam ne dina ko def bu soobee yàlla. bu ko neexoon sax toog palais sax bañ a campagne ndax bilan bi rek défendre na ko parce que boo gisee euh, ñu ko fi jiitu def vingt ans sax te réalisé wuñu li mu réalisé macha allah président de la république bilan om rek défendre na ko. kon euh, ñun suñu xel dal te premier tour gaay 60 lañu wax sax mais ñun dinañ jall 75 euh, président euh, je trouve que bilan est c'est assez riche te li yamul rek si il est en chantier donc dañ koy may mu deuxième mandat continuer aider ci population Sénégal donc inshallah nous am nañu mais am na réalisation yo xamantene mi ngi ci suñu kanam té bu soobee yalla dañuy euh, wax sénégalais yi jox ko deuxième chance euh, su ko defee mu égalé yéeneem ci Sénégal.